Sëriñ Tuubaa moo ko may ndaxte moom nii moo ko dox buñ fi ñëwee daaw moo toog ak maire bi wax ak moom ko ko maire bi may ko ko mu jaar si tànku waajuram bu tedd bi sëñ Mourtada Mbàkke ni mu ko defee si àdduna si ko Amérique daf ko Europe daf ko moom mu jël plan boobu continuer jaar si tànkam si daan teg tànkam mu teg fa tànkam continuer di liggéeyal lislaam di liggéeyal si Cheikh Amadou Bamba kon nag duñu war sant suñu borom sant ko moom bu ñu yàlla may ñu teew fi tey am lii si Europe am ko fii si Espagne moom lañ ko war sant euh, ñu war a gën góorgóorlu ñun Sénégalais yi ndax yàlla bu la dimbalee jagleel la lu ñëpp amul da nga ko war a xam téye ko sa fukk loxo euh, dem bitim réew ñëw Europe am fi bés boo xam ne buñ la ko jagleel jagleel ko sa sëriñ loolu yaakaar naa ni dara nañu ko bëggoon mais mënuñu ko amal. lu ñu ko may mooy euh, li ñu jëlee si sëriñ Tuubaa mu jàngal ko topp suñu diine topp suñu euh, na ko salaw Sénégal yi ñoo fi ëpp. mais nee na Sénégal yi moom lu mu gën a fonk te lu mu leen fonk di lu mu si ñoom di ñu ci gàmm di di si leen ñu dugg suuf seen yoon nekkul loolu lu am solo la te du rek Espagne lu mu man fu nekk naa ko dem mais fu ñu taxaw toogoo autorité yi mu ni Sénégal yi sant na leen naa sax benn municipio muy moom bu doon sagoom du am benn étranger ministre mu Sénégal loolu lu am solo la kon nag euh, ñoo war a góorgóorlu sëñ bi wax na ko euh, lu tax ngeen mën a toog nekk si jàmm mooy respecté waaw réew mi soo nekkee réew jàmbur lu xam ne boo ko defee Sénégal yoon teg la loxo di fa def soo bëggee jàmm si réew seetal li ñu santaane nga jaas yi aussi ba waa réew mi ñuy dund ñu ànd seen ñoom respecté seen culture respecté seen tradition te di yëngutu si lu ñuy def li ñu def tey ñu dajaloo am bés maire maire bi bàyyi soxlaam bàyyi biam ànd ñu lépp moo tax ba aussi ñoom li ñuy soxla ñoo war a bàyyi seen marché bàyyi seen njaay bàyyi seen liggéey ànd seen ñoom parce que boo bëggee xaw ne boo xaw ne ñu wuy ko te bu ñu xaw ne loo dem loolu mënut a sotti kon si loolu laa leen di ñaat ngeen gën a góorgóorlu di leen sant di sant nag seen seen njiit ñi jiite association jiite daay réew toujours wax leen man leen Sénégal yi gën a jiital da ngay tam xam neexuñu jiital ñu nañu ñoom seetuñu si dara wutuñu si dara bañuñu si dara. ndax ngir yàlla moo tax ñu def ngir seen réew yéen a war a góorgóorlu jàppale leen ñun suñu en tant que consulat lu ñu leen mën a jàppale ñoo koy jëm a def xam naa ni yëpp mënul mat xam naa ni mburum passeport yi tar na metti na si nit ñi mais occasion pour expliquer leen système bu ñu am léegi moo metti man xam naa ko gouvernement bi xam na ko mais système bi léegi il faut que nit ñëw ba Madrid mën na déposer passeport yéen sax xëy na ñoo ciy soof ndax mu ngi jóge Sao de Madrid nañu nekk si île war a jël avion boo amul kayit du jël amul passeport du jël avion ñu la demal mën na xam nañ ko mais pour le moment mënuñu si dara lu ñuy ñaan mooy gouvernement bi jox ñu ay moyens te loolu dinaa ñaan seen bu demee Sénégal mu jotti lu ñu ko nguur gi mu ne gis président mën ko ko jox bi mu jox ñu ay moyens mobiles yoo xam daal ñu mën di déplacé wu ñu ñëw équipement fii si Saloum am fi ñetti fan ñeenti fan ku bëgg a paaxu ñu defal la ko bu fi jógee dem terrasse dem feneen bu ñu ko mënoon tey def ko mais amuñu ko nit nag wala ngaa ñëw ku nekk dina am lu ñu marché loolu la am metti na gis na si nit ñi. jërëjëf mais ñu ngi lay góorgóorlu am na nit xam ne dina jeex. ñu amoon na ay temps dañ daan déposé passeport. ñu ñëw Sénégal. moom fu fukki juróom-benn weer wala un bu mu gone ñu baal sa passeport. loolu tane na. bu ñu demul si kanam ba mu nekk Sénégal ñuy kaas man su ma mënoon luxul passeport ñëpp am ko benn bés ba noppul mais mënu ma ko ma doon kon nag war a comprendre loolu xam ni jafe-jafe du si ñun mooy la ñu ñu sëñ bi jàppale ba loolu am bu soobee yàlla dina war kon nag leen di dem di leen gërëm di leen sant di gën a ñaax di leen gën a góorgóorlu xam li ngeen am xam li leen sëñ Tuubaa liggéeyal ngeen jàpp ko seen fukki loxo topp ndigalu sëñ bi su yaakaar naa su ngeen defee ñoom dañu la waa mbokki taalibe yi kon ci discours consul Sénégal bi ci la jataay bi du jeexee fii ko defee mbokki taalibe yi ku nekk dellu fi ñu la dalaloon ngir euh, dallu fa ba keroog heure ndogu du jot waa daayira Touba Terrassa nag ñoom ci kër jëwriñ ba lañ daloon parce que kanamee leen woon image yi seen kuréel leen fa dem ak xaasaay bi leen ko doon jàng ak kaamil doon ko doon wàccee dinañ leen ko woon si kanam image yi ngeen di gis kon ñu tàggatoo foofu rek ci kanam ñu wën leen euh, waa daayira Touba Terrassa fi ñu daloon